نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعذاب وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين mu ni wax bub nu munabbi ak ahbar ak ñudul ñoom ci ñi jàngoon teri jeki jëkk yi nettali nañu ne ayoob moomuy yàlla di tudd ci alquran nu ni dafa mi ngi doon benn bu bokk ci rom waa ju njoole la woon bopp bu rëy bopp bu rëy la yoroon ak kawar gu sëq gu la ku rafetoon ñaari bët la ku rafetoon bind la doon ku gàtt ak doq waaye ñaari yeelam yeel yu tal la ñaari përëgam përëg yu tal la yoroon ba tey jëb yi dañ caa bindoon ca kaw ni ku ñu nattu ku muñ a ngi nii kooku mooy kan mooy ayub ibnu amos ibnu taarix ibnu rom ibnu is ibnu ishaq ibnu ibrahim alayhim salaam mu ni ndeyam ci niti Luut la bokkoon ndeyam mi ngi doo bokk ci doomi Luut ibni Haaraan yàlla tabaaraka wa taala daf ko tànnoon def ko mu doon ab yonent may ko it àdduna mu am aw tagg ci kaw suuf suufu saam sépp di ko di ko tagg la ca doon ak joor ak la ca doon ay xur ak doj yi ñëpp maase di ko tagg mboolem xeetu alal it yàlla mayoon na ko ko muy ay gilem bari la na ko lool doon ko bari ay nag doon ko bari ak jur doon ko bari ay fas doon ko bari ay mbaam dajale na ci loo xamante ni kenn ci ñam jamonontel dajale wu ko ngir ak bari jamono bu ne daana am juróomi téeméeri jaam jaam bu ci ne am soxna ak doom ak alali boppam moom ayub yalla mayon ko ay waa ay soxna ak dom mu am ak njabot ay gur ak jigen. waye ci bir lol lepp nak ku ragal yalla la won ku amoon yermande la ci miskini dan yar jigen ñi nga xamanteni dañu amul jëkkër mo di len di len mboolem ñi nga xamante ni ay xale yu seen i way jur faatu lañ it mu di leen jàpp mooy ñu ñuy wax ay jërëm di leen dajale daan ku daan teral gan la képp koo xamante ni dafa tukki ba agsi fi it dana ko teral ba noppi may ko ab yobbal bu mu jàll fa mu jëm ku daan sant xéwali yàlla yooyu ko yàlla xéwali la woon àq ji ca waroon jëpp mu daan ko joxe daan moytu lool seytaan di ko dugal dugal ko ci lu mel ni lim dugal mboolem niti àdduna yi ñi am alal fa leen seytaane dugal ci ak mbew akuk càggante ak bari soxla ak bari yitte bay fàtte mbirum yàlla loolu li moom ku ko daan moytu la moom ayub alayhi salaam ànd ak nag li yor ci àdduna lépp nga xam ne ñëpp moo leen na ñetti gaay yoo xamante ne dañ koo gëm topp ci moom dëggal ko xam nga neelam benn waa ji mi ngi bokk ci waa Yaman tuddoon al ñeneen ñaari gaay yi ci des ñu ngi bokk ci dëkk ba mu dëkkoon muy Rome kenn ki mi ngi tudd Malik kaja tudd Zafir ñoom ñooñu ay mag lañu woon yoo xamante ne li ñuy tudda ay dori moom lañu woon maanaam weesu nañu ak waxambaane te àgguñ ci màggat waxam ne na Jibril alayhi salaam am na ci kanamu yàlla ab maqaama boo xamante ni benn malaayika ci malaayika yi amu ko ci jage ngir jage gum yege yàlla ak ngeneel lum am jibril mooy ki nga xamante ni mooy jële wax ji ci yàlla mu yàlla demee ba tagg ab jaamoom sant ko jibril mooy jële wax jooju ci yàlla mikaayil topp ca ña ko wër nag nga xamante ne ñooy malaaykatul muxarrabin yi door a dégg tagg woowu nga xamante ne yàlla tagg na ko jaamam boobu ci kaw suuf bu loolu siiwee ci biir malaayka yi malaaykatul muxarrabin yi mujj ñoom ñëpp dañuy ñaanal jaam boobu nga xamante ni jaamu na yàlla ba yàlla sant ko tagg ko ba ñoom ñëpp ñu am ci yoon bu demee ba ahlu samawaat yi ñëpp di julli ci kooku yi julli googu day mujj wàcc ci kaw suuf loolu yi mooy indi aw tagg woo xamante ne day daj kapp suuf si ñëpp di tagg jaam bi yi maanaam jaam bi dafay jaamu yàlla ba yàlla tagg ko sant ko jibril alayhi salaam tagg ko sant ko mikaayil tagg ko sant ko malaaykatul muxarrabin yëpp tagg ko sant ko waa kaw asamaan sépp buñu maasee di tagg jaam boobu ak sant loolu mooy mujj wàcc ci kaw suuf ba ñëpp di ko tagg ak di ko sant di ci moom lu rafet ko fi la ayooba jaaroon alayhi salam bi ayooba fofi iblis mi nga xamanteni ni mooy kilifa seytaane yépp jamono yooyu mi ngi amoon martaba boo xam dana àgg ci asamaaw yépp fu mu fi bëgg taxaw rek dana fa taxaw ci biir loolu la àggee woon ci aadama ca fam nekkoon ca àjjana bu mën ko faa génnee iblis continué na di yéeg ci kaw asamaaw yi ba nga xam ba yàlla yëkkate ay bnu mariam alayhi salaam ñu door a tere iblis ñeenti asamaaw yu mujj yi nga xamante ne ci ñetteelu asamaaw yi rek fi lay taxaw bi yàlla yónnee muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñetti asamaaw yooyu mu daan dem mënatu ca àgg ñetteel bi asamaaw sax mënatu ca àgg moog ay soldaaram ak i kuréelam bi muy àndal yëpp dañ leen a yiir ci mboolem asamaaw yi ba yowmal xiyaam dootuñu mënati àgg fa fa ñu daan àgg ndare bu ña nga xamante ne ci jënd yi ñooy dem di sàcc xibaar yi ci kaw te ku ci sàcc ku ci dem ba ci asamaan su njëkk dafa sàcc ab xibaar ca saasee la la ab jum di topp xali sawara yoo xam dañ la koy lakke ba du dafa mën sàcc benn xibaar iblis moom mi nag ci kañaan gi mu am ci doomu aadama ak coxarte gi bi mu déggee malaaka yépp di sant di ñaanal Ayyuba di ko tagg ak mbañeel ak kañaan dox diggante ak moom mu daal di gaaw yéeg ci kaw asamaan ba ci taxawaay bam mënoon a taxaw fam ca fañ ko fa yamale woon ci jamono booba mu wax boroomam ne ko xool naa mbirum sa jaam mbiri Ayyuba waaye gis naa ne jaam la boo xamante ne xéewal nga ko may nga ko ak xéewal mu sant la ci xéewal googu may nga ko jàmm mu gërëm la ci jàmm jooju waaye gis naa nattuwoo ko ci benn nattu tartar tegoo ko menn musiba gis naa ni boo ko tegoon ay xeeti musiba ak i tartar de dana la weddi dana la fàtte it yàlla ni ko yaa wax loolu mu ne ko am mu ne ko ayoo baangoogu bàyyi naa sa digganteeg moom nga seet ba xam loo man ci moom léegi alali boppam daal loo ci man mën nga ko ca def nen noonu yàlla boobu di iblis daal di gaaw ba agsi ci kaw suuf dajale mboolem njuuma yi jinne yeeg seytaane yi ak ña ca ëpp kàttan ci ay pexe ñi leen nag lu ngeen am ci kàttan akub xam-xam na ngeen ko indi ndax alale ay yooba yàlla bàyyi na ma ak moom nee ma lu ma ci mën naa ko def te gis naa ni nit am alal ba mu jàkk mu ñàkk ko mooy musiba mi gën a kawe ci musiba yi mooy fitna ji nga xamante ni kàttanu nit du àgg ci muñ ko kon nag def leen seeni i paxe ba nu ngeen mën a def ba yàqal jàmm boobu rek ngeen yàqal ko ndax loolu yéen mooy seenum liggéey am benn njuuma ci seytaan yi ku jóg ni ko man de am naa ci kàttan loo xam ni su ma neexoon danaa soppi ko doon ay xali sawar lépp lu mu am ci alal mën na maa soppiku doon sawara dem lakk ko iblis ni kon yow li ma lay sant mooy demal ca gileem yam am lakk gileem ya lakk sàmm ya ko daan sàmm njuuma googu seytaane soosu daal di jóg nga xam ne mooy ndawul iblis daal di jóg jëm ca gileem ya fekk gileem yi nañ ba ñëw ba goor ba tëral seeni bopp ba tok fañ nga xamanteni fa lañuy ñuy dajaloo nga xamanteni fa lañuy ñuy daje buñ buñ sànnee ba nit ñi amuñ lu may jek jek rek gis ay xali sawar yo xam dafa wër ngedd li kapp rek mu jek jek di tak te gilem yaangi ci bir gilem gi duñ daw duñ xam fuñu daw jaar fu daw jëm rek sawara si jóge ci bor boba non lañ lakkee ci bir ngedd li ba jeex tak sàmm sa leen daan sàmm it nekkoon ca biir di defar ak ratt it ñoom ñëpp dañoo deewaale ca biir ca njëlbeen nga ba ci mujj dara desu ci bi nga xamante ne lakk nañu alal jooju ba mu jeex iblis daal di soppiku jëmm joo xamante ne dafa mel ni kenn ci ñi daan sàmm gilam yër daal di dem waaxu dem wuti ayooba ba mu demee fekk ko mu taxaw di julli mu ne ko yow ay ayooba ayooba ne ko labbayka mu ne ko ndax xam nga sa boroom mii nga xamante ne tànn nga ko di ko jaamu di sonn ci moom lim def ca sa gileem ya ak lam def sàmm sa Ayyub tontuwu ko lenn lu dul ne ko alala ma sama borom moom may jaamu yi sama gileem yooyu ma am ak sàmm sa alalam lañu daf ma ko abaloon te moo ma gën a yaay ci alal jooji bu ko neexee mu bàyyi fi alal ji bu ko neexee it mu jël alal ji yóbbu ko waaye alal ji moom moomu ma ko sama borom ko moom te wóor na ma ni it awma dara wér na ma te awma lenn lu may nattale ci ne sama jëmmi bopp ak sama alal ji ma am lu àdduna yàgg-yàgg dinaa dem ba dootuma fi nekkati sama alal jooju dina ba jeex tàkk danaa jeex sama alal jooju day jeex kon yàlla lu ko ci neex rek ci sama alal mu def ko ci ndax man sax xam naa ni mën na ma ñàkk te bu neexee yàlla mu jël ma yóbbu daal di déglu iblis mu ne ko sa borom moom mi ngay jàmm de yabal na fa sawara ci wu jóge ci kaw asamaan di leen yëpp lakk ba nit ñëpp nga taxaw jaaxle lool ñoom ñëpp ña nga taxaw di yéemu ci loolu yi xew am na ci ñoo xamante ña ngay wax naan ayoo ba daal lii muy jaamu du dara lii muy jaamu lii mu nekk lépp ay waru kepp la am na ci ñoo xam ni ña ngay wax naan ayoo ba di yàllaam ji muy wax ni mooy yàllaam boo fekkoon ne dëgg la xanaa dana ko mën a protéger bopp ci alalam ji am na ci ñoo xam ña ngay wax ni yàllaan ji muy jaamu moo ko def lii ko dal ngir bëgg ay noonam mën a ndokk mën ko ndokk yàllaam jooji muy sonale boppam de du yàlla dara waaye ba mu waxee ba bàyyi ci xeeti wax yépp ya nga xamante nit ñaa nga taxaw di ko wax ayoo ba ne ko alhamdulillahi allati ahtaani wa haythu shaa nasaa minni sant naa yàlla mi nga xam ne moo ma ko joxoon te fa mu ko neex it fa la koy jëlewaat ci ndax bi may ñëw ci àdduna day damaa rafle woon jóge ci sama biirum ndey indaale moo fi mbubb indaale moo fi tubay te wóor na ma ne bu may duggaat ci bàmmeel day ku rafle laay doon du ma yóbbaale mbubb du ma yóbbaale tubay danañ ma pàng ma dem ci sama borom it te lii lii yàlla ci ab jaam day mooy lu ñu la abal loola sa borom abal waru caa am mbegte jamono ba muy jël loolee mu la abaloon it warul caa am njàqare ndax li mu la abal moo la ci gën a yaay kon saa bu ko soxlaa da ko war a jël te jaam bu ne it war naa xam ni yàlla lu mu ko may ba jël nangu loolee da caa war a sant yàlla ndax bu ko neexoon mu boole waale ca ruug jàmbata bu boobaa dootu mën a te fàggu dara sama ruug gii de bu neexoon yàlla mu boole ko ca ruug yooyee mu jël kon sant naa ko xaj na ay wu nekk ci man ak manqué gu nekk ci man moo mu jëlaale sama roog gi yóbbaale ko ndax man day demoon moo ma gënal ndax ma jege yàlla ndax ruu yooyee dem day damaa jàpp ne dañ maa ëpp chance moo tax ñu dem waaye bu ma amoon chance dinaa àndoon ak ñoom dem iblis daal di jaaxle lool ci tontu lu rafet loolu nga xamante ne moom la ba tontu ak ngëm gi nekk ci moom ak tawxit bu rafet bi ndax lam doon sàkku lépp yaakaar jëm amoon ci ne dana yàqal ay yóbbu yaakaar jëpp tas na mu delluwaat ci ay àndaleem doon ko perte don ko torox doon ko sooy ca lam doon sàkku ci mu dikkati ni leen nag lu ngeen amati ci kàttan de booy neboo dajale ko ndax li ma man lépp def naa ko waaye ba tey jëmuma xol ba de xolub ayoo ba léegi jëmuma ko genn ñëw ma ca ci gën a bari pexe gën caa bon gën caa seytaane jóg ne ko man am naa kàttan goo xam ne bu ma danaa yooxu xeetu yooxu goo xamante ni lu amagu ruu lu ko dégg sag ruu dana rot iblis ni ko kan kaay ma la kaay dem ca jur jur maanaam ca gëléem yi la kee demoon waaye yow kaay dem ca jur gu ndaw ga xar ya ak bëy ya ak ña koy sàmm mu daal di jóg dem ca jur ga xar ya ak bëy ya ak sàmm sa ba mu demee ba dugg ci seen biir daal di yooxu genn yooxu goo xamante ni jur gépp dañoo maase dee sàmm sépp maase dee benn iblis genn jëmati ca Ayoba di nuru kenn ci ñi daan sàmm xar yooyu ba mu demee mi ngi fekk Ayoba taxaw di julli mu wax ko lu mel ni ko waxoon bu njëkk waaye Ayoba tontu ko lu mel ni ko tontu woon bu njëkk ni ko sant naa yàlla ñu ma ko joxoon jël ko te bu ko neexoon mu jëlaale ma ndax damay ñëw dama rafle te bu demit damay rafle te bu ko neexoon mu ma si ndénkaan dong la woon ci man moom ma te ku dénkaane ku dem bu la neexee jël ko ndax yaa ci gën a yaay kan ko dénk ton ko tontu lu rafet dellu ca tub gu sell gam nekkoon iblis gën a jaaxle delluwaat ci ay àndaaleem dikkati ni leen ba tey jamuma ab xolam de xolub ayoo ba léegi jamuma ko lu ngeen am ci kàttan na ngeen ko daje am geneen njooma ku bari pexe ku seytaane ci ña nekk ku jóg ni ko man am naa ci kàttan loo xam ne bu ma neexee dinaa doon ngelaw loo xamante ne ngelaw lu tar lay doon luy rëddi loo xamante ne lu mu doon romb dana ko buur daaneel ko iblis ne ko kon demal ca mbay ma ay toole boppam nga dem ca toole boo demee ca toole mbay moom fa bàyyi na ko buddi daaneel garab yépp ba dara du fa des mu daal di dem ba demee def ngelaw lu tar gépp garab gu fa nekkoon rek mu buddi ko ba mu mel ni garab mu si taxaw ci tool iblis jógati di nuru fexe ba melal boppam ni ka nga xamante ni moo doon kañ dénk wàllu toole dikk ci ayoo ba fekk ko mu taxaw di julli mu wax ko wax ju mel ni jam ko waxoon bu njëkk ne ko sa boroom mi ngay jàmm di lam la def nangam nangam nangam waaye yoosu ayoo ba tont ko tontu lu mel ni tontu lu njëkk la rek ci xel mu dal ak tawxiid bu rafet xamal ko ne ko daal yàlla moom ma ko abaloon jël na ko te ko able ko ne yaa gën a yaay ka nga abal bu ko neexoon mu yóbbaale ma ndax bi may ñëw ci grafale laa dikki woon te bu may dem ci grafale laay delloo nee na Iblis tàmbalee ko ca bu njëkk ba ne ko xoolal sa gileem yi ni mu ko def xoolal sa yàlla mii ngay jaamu ni mu def jur gi nga amoon muy xar ba bëy xoolal yàlla mii ngay jaamu ni mu def sa mbay waaye lu mu ci wax bu mu jeex rek la ca ayoo bay teg mooy sant yàlla rafetal aw tagg ci yalla gëreem lo dogalub yalla dalal am xelam ci muñ muñ musiba mi ci li ci dess bi iblis gisee lolu nak, gis ni mom pexe mu amon yépp jeexna ta amul ben jeexit bu mu def ci ayoba ta gis na ni pexe mu ben def yépp ben réussir ci lolu dis ci mom gan mu di bu gaaw dem ba ca taxaway bu mu daan taxaw buy wax ak yalla daal ni ko yow sama borom ayooba day wóor na ko ni lépp loo ko mën di xañ li fekk mi ngi dese bakkanu boppam ay doomam di fi des rek dafa mel ni jox nga ko alal jëm dafa mel ni xañoo ko dara ndax mënoo maa may ma am kàttan guma dale ci kaw doomam ndax gis naa ne doom yooyu moom su ma ca dalee moom mooy fitna ji gën a mage mooy ba mi gën a rëy mi nga xamante ne xol mënu ko àttan te loolu moom kenn mënu ko muñ yàlla ne ko demal bàyyi naa sa diggante ay doom loo ci mën dafa nee mu daal di buur gaaw ñëw ba àgg ci doomi yonante bi yàlla boobu di Ayyuba te booba ña nga ci taax mañ ya. dëkke mu dem di ko puus di réng-réngee taax ma di ko réng-réngee ya. ba taax ma mabbu ci seen kaw ba màbbee ci seen kaw mu wëlbatiku ko bi waat lépp xëppaat leen ko bañ mokk rumbux ca biir mu fab ay dénk ak yi doj xarab leen ko nga xamante ni jenn jëmm desul ci ñoom ba wépp métital rek def na leen ko nga xam dañoo mujj ñoom ñoo ñu seeni bopp dafa jattu ñoom ñëpp jëm suuf doj yi féete leen kaw iblis daal di jóg dem ca ayoba melal boppam ni jàngalekat ba leen ayoba boole loon mu di leen mu daan leen jàngal nga xam ne melokaan woowu la la feeñoo ayoba bi muy ñëw dafa àndaale benn xaañ-xaañ ci bopp bi wan ko ne ko man mii leen doon jàngal damaa génnoon jëm barab sàngam rek ne xaañ-xaañ bi sax ca la ma dal mu fexe ba kanam gi di sotti ko deret ngir bëgg mën a dëggal li muy wax mu daal ko xibaar xibaar bi fi mu jaare ak li xew ak ni mu dem ni ko yow ayoo ko sa doom yee de boo leen gisoon ak mbugal mi ñu leen mbugal ak taax ma nga xamante ne moo leen tiimoon ni ñu ko wëlbatee ci seen kaw ak ni ñu jattee seen i bopp seen i darat ñoom ñëpp di sotti ko seen i yóor tóoru di jaar ci seen i bakkan di yor di génn ak seeni tuñ ay boo gisoon seen biir yéenam xotti ko nga xamante ni seen butit yaa ngay walwal di génn loolu de boo gisoon sa xol bi dana daggatu continuer di ko wax yu metti di ko wax yu metti ba xolub ay yooba yërmande ji daf ci tàbbi mu dal di jooy dal di ngëpp ngëbub suuf teg ko ci kaw boppam léegi bi mu ngëbee ngëbub suuf teg ko ci kaw boppam ngir njàqare loolu mu am nag Iblis daal di occasionné ci loolu daal ne ginnaaw am na njàqare lii rek naa gaawaat léegi su ma gaawee njàqare loolu dana mujj ko li ma bëgg ci amatu naa ko mën a am ginnaaw tiit na tey rek waaye bi Iblis demee tuuti ayoba yàlla dabaatal ko mu fàttaliku yàlla daal di jéggalu yàlla ci tiitaange jooju mu téet daal di sant yàlla ci loolu mu def daal di dellu jaar fa mu daan jaar ñi mu daan àndal ci ay malaayka ñoom ñëpp ànd di ko jéggalul yàlla di ko tuuble yàlla ñoom malaayka yooyu nga xamante ne ñoo daan nekk ak ayoba it daal di jëkkante iblis ak yàlla dem ca yàlla te yàlla moo leen gën a xam li xew bi iblis ñëwee doon ko torax ndax li mu bëggoon lépp lam doon defar lépp yàquwaat na ginnaaw ndax ayooba ginnaaw bi delluwaat na am xelam dis na ci yàlla ba mu ko delloo yëpp ci loxo iblis daal di wax yàlla ne ko ayooba day lii ba tey mën naa bañ a des ci moom alal ji mën naa dem ay doomam mën a dem waaye gis na ni li fekk mu ngi am bakkanu boppam li fekk ruug boppam gaa ngi mucc rek xam na ne mën nga koo delloo sil alal jëm amoon ndax mën na ko fàggu doom yam amoon it mën na ko fàggu ndax dañuy wax ni nit ki mooy fàggu alal waaye alal du fàggu nit ki li tax mu mën a muñ lii mooy bakkanu boppam bi des ak ñàkk gi ñàkk yenn problème ci jëmmi boppam ndax doomu may kon ci jëmmi bakkanu boppam ak yaramu boppam léegi nga may ma ma kàttan ci ma dal ci kawam gaaranteel naa la ni su ma ko nattoo ci aw yaramam dana la fàtte dana la weddi dana weddi xéwal gi nga xéwal waaye loolu lépp yàlla mi ngi jubla woon Iblis rek dëgëral gum dëgëral ab yonante wan ko ne ko sama yonante bi ma xas tànn ba dëgëral ko rek kenn mënu ko wëlbati te fokk rek sama nit lay doon te fokk yoon bi ma jaar ci la bëgg moo tax yàlla ne ko may naa la yaramu boppam ak bakkanu boppam nga dem loo ci mën nga def ko ni ko waaye li ma la dul may nag mooy làmmiñu bopp làmmiñ wa ak xol ba ak xel ma mu mayu ma la ci dara loolu lépp nag bi ko yàlla def am na xikma bi mu ci jublu njariñ lam ca jublu mooy ngir ko ngir màggalal ko ab ak payam ak yool bi mu war a am rek ak ngirit yàlla def ko jubloo def mu doon ak waaraate ci way muñ yépp doon ak fàttaliku ci jàmmkati yàlla yi ci musiba bu leen mën a dal bu ñu fàttaliku ayoo ba seen xel del bañ mën a continuer ci lañ nekkoon loolu li ci yàlla jublu ak bëgg ñëpp mën roy ayooba ci ak muñ ak di yaakaar yool bi nga xamante ne mooy yoolu muñ bi ci nekk ko accès ci lu mel noonu rek mën a ko mën a jaar foofu yi ayooba jaar yàlla lim jublu ci natt bi mu teg ayooba loolu la ci jublu mooy loolu yi noonu bi yàlla boobu iblis daal di jóg bu gaaw fekk ayooba muy mu sujjot jëkk muy yëkkati boppam ca sujjot ba mu mu mu jaar ca suuf ci suufu suuf si la jóge wol ci ñaari bakkan yi wol goo xamante ne dafa mel ni yaram wi daa jekk ci rek tàngandoo jër fépp di xasan rek mu jóg di wokkutu di wokkutu di wokkutu di wokkutu ba ay wem damm mu jël ay bant di ko wokk jël ay daj di ko ko wokke ba yaram wi daggtoo yàpp wi daggtoo moom ci bappam mu soppi ko mujj wokk wokk yooyu mu doon def yaram wi ba fépp dagg daa mujj moom ci boppam kenn mënatu ko jégé ngir lepp ay gom la muy xéñ bu muy xéñ ba nit ñi mënatuñ ko dékku ñu génné ko dékk bi dañ ko génné dékk bi kenn nangootu ko jege seen soxnaam képp moo nangoo jaxas ak moom ñu daan ko wax rahma waa dëkk ba dañ ko génnee yóbbu ko ba ci ab santaare ñu bàyyi ko defal ko fa benn néegu ñax soxna soo si di di Rahma di doomi Afrasim di doomi Yuusuf Yuusuf ibnu Yaqub alayhim salaam soxna soo si rek moo fa demoon desoon di ko toppatoo di ko toppatoo ak lekk di liggéey di mbindaanu lu mu am jot ko fekk ko ci biir seen boobee ñett ñi nga xamante ni ñoo ko gëmoon bi ñu gisee nattu bi ko yàlla nattu ñu tuumaal ko moom Ayóob daat koy bañ bàyyiwuñ diina ja waaye dañ ko tuumaal bi balaa bi yàggee ak nattu bi ak musiba mi ñu ñëw ci moom te booba mi ngi ci biir biir balaa bi di ko yàdd ne ko jógal nag te tuub sa bàkkaar bi nga def ndax lii la yàlla teg de bàkkaar boo def la kon dangaa war a jóg tuub ko bi ñuy wax loolu am na benn xale bu ndaw bu fa teewoon waaye xale boobu ku gëmoon la gëmoon na ay yow ba déggal ko ni leen yéen mag ñi de li ngeen di wax du ay wax la gënoon rafet ci wax de bàyyi ngeen ko xalaat ba gënoon a jógit defu leen ko mbir ma gënoon rafet tàggi ngeen ko ndax ay Ayóoba de am na ci àq am kóllëre am na ci àq am ci yenn kóllëre goo xamante ni ëppanti naag li ngeen taxaw di ko wax tey waaw ndax yéen xam ngeen ni ayoba mi ngeen ngeen jublo wañi akam wala ak yalla ndax ormay ayoba ngeen jubloo xoti wala ormay yalla ngeen jubloo xoti ndax waji ngeen di ayibal xam ngeen moy kan ki ngeen di tumal nan day mooy yalla xana xamulen ni ki yonent yalla la ab sopem la xana xamulen ni ci yalla tan la bok xana xamulen ni ayoba mi kaddu yalla la ci kaw sof ci sen bisub tay bi ak kan mo len wax ni len yalla daf ko mere ba tax mu tek li mu kan moo leen wax ne leen yàlla teraanga jëm ko teraloon muy teraanga yonent daf ko nocc ci moom yéen day gis naan li ngeen di yàgg yàgg ak ayoba li ngeen di ànd ànd ak moom rek ba léegi xamu leen ab dayoom ndax bu fekkee ni balaa bii ko dal moom ngeen ko xeebe moom ngeen sippee dara jaam xanaa xamu leen ni yàlla dana nattu yonante yi di nattu siddiqoona yi di nattu suhadaa yi di nattu saalihiin yi daanaka yàlla ñi gën a baax rek lay fekk di leen tegal nattu waaye nangeen xam ne nattu boobu yàlla di nattu ñooñu day du ab tegtal buy teg leen def leen a bañ du ab tegtal buy teg leen def leen a doyadal waaye teraangala ak tànn goo xamante ne da koy dolli ci ñoom ayoba mii bu fekkoon ne du mooy ayoba mii ak martaba bi mu am ci yàlla sax lu dul ni yéen ay mbokkam ngeen yu bokk ak moom nekk ci dëkk bi képp mbaa ngeen amoon ak moom relation bi ngeen daan ànd képp rek li gënu na rafet ci ko am xel au lieu ngeen di ko yedd mooy ngeen yërëm ko ci musiba mi ko dal mooy ngeen di ànd ak moom di jooy di ko jooyle lii mooy bu fekkoon ni ab àndandoo képp la bu ànd ak yéen ba lii dal ko ngeen dem di ko jéggalul yàlla di sàkku ci yàlla ak jéggal bu ko jéggal njàqare li am ngeen di jàq ànd kook moom bu amee mbégte ngeen di ko ànd kook bu fekkee ne dafa am lenn lu ngeen xam luy baax ci moom ngeen tegtal ko waaye moo gën yàlla moo gën yàlla maanaam ngeen ñëw di ko jëm a yedd te sax day du am xel bokkul ci hikma bokkul ci ak njub jëf ju mel ni jëf ji ngeen jëf li ngeen jëf di ak réer gu mag la ay yéen mag ñi ragal yàlla ragal leen yàlla ndax bu ngeen fàttalikoo màggug yàlla akug réem ngeen fàttaliku dee fàttaliku li nekk ci seen kanam de loolu képp mën naa dox mën naa téye seeni làmmiñ ba yóbban yi ngeen def dëgg li nga ko waxte xanaa xamu leen ni yàlla am na ci kaw suuf ay jaam yoo xam ni def leen a la leen noppiloo mooy ak ragal yàlla ñu ne cel waaye lottuñ ci wax luwuñ ñu am fasaaxale lañ ñu am xel lañ ñu am balaaxale ñu ami xam-xam lañu ci yàlla xam ay kimaan waaye buñ fàttalikoo maagug yàlla rek seeni làmmiñ day daal di dagg day daal dog seeni der kotamu seeni xol damm seeni xel tooy loolu lépp ngir màggal yàlla lañ ci jublu waaye du manqué teg ñu te bu ñu weetee it dañuy dellu ci yàlla ci jëf-jëf yu sell di jëf-jëf yu rafet jamono bu ne dañuy limaale seen bopp ci ñi nga xamante ne ay moykat lañ limaale seen bopp ci tooñkat ya te fekk ni ñu set lañ dañuy limaale seen bopp ci way sàggan ya limaale seen bopp ci way gàttañ ya waaye fekk ne ñu farlu lañ ñu dëgër lañ waaye seen diggante ak yàlla dara du ci bari ci luñ ci def duñ ca d' accord ci duñ ci gërëm loolu néew mukk luñ ca def jamono bu ne ñii mokk la ñuy doon ñii toroxlu la ñuy doon ñii tiit lay doon ñii miskin miskin la ñuy doon seen diggante ak seen doon bi nga xamante ne xale bi wax na loolu mag ñi ba noppi Ayyuba ni leen yàlla dana fab xikma ci yërmandeem jëmbat ko ci xolub jullit bu mag di ko jëmbat ci xolub jullit bu ndaw te xikam boobu de saa bu ko yàlla jëmbatee ci ab xol dana feeñ ci kaw làmmiñ waaye na ngeen xam ne xikam boobu de nekkul ci ay at nekkul ci bijaaw nekkul ci bari ay jaar-jaar ak nattu ak expérience te yàlla de bu xasee def nit ki mu doon xakiim ci ak ndawam na ngeen xam ne ko am martaba la te martabaam boobu dootu wàcc mukk fa boroom xam-xam yi xikma ya ndax ñoom saa bu yàlla defee xikma ci nit ki danañ xam ne yàlla xikma boobu di ko dénk ku ndaw du ko dénk ku ndaw ak donte gone la ci atit mag la bi ayoo ba waxee loolu yi ni leen nag yeen da ngeen ñëw ànd ak mer dikk ngeen jooyit jëkk ñu di leen dóor te kenn dumaw leen waaw yéen de waaye nii ngeen àndewoon ak man ba tey jii ngeen ñëw di ma yedd ci ni ma balaa bii damaa tooñ yàlla ba tax mu teg ma ko ak mer mii ngeen àndal xanaa yéen di su ma leen ni woon sarxee leen seen alal yëpp ngir sama jëmm xanaa du ko def ngir yàlla xeet li ma xanaa loolu de kon seen xel du ko xalaat su ma leen ni woon alal yi ngeen am fab leen ci ay gileem ak i xar ray ko ngir yàlla musal ma ci lii yàlla nangu ko nangu ko ci yéen musal ma ci musiba mi ma nekk de xanaa du ko def dafa mel ni dangeen ma mujj tey jii amatuma benn xalaat amatuma jenn wax ci sama diggante ak yéen ñii de tey jii yéen a gën a tar musiba mi ma dal tey leen waxee loolu nag daal leen di wan ginnaaw dal di jublu yàlla nag di ko ci yàlla di toroxlu jëm ci yàlla ba wax ni yow sama borom di xawma lan moo taxoon nga di ma bind aka neexoon bi nga xamante ni bëggoo ma nga xamante ni danga maa bañ rek ba teg ma coono bu ni nga ma teg nga bañoon maa bind aka neexoon ma doonoon mbërëg sama yaay génnee ma ma doon deret bañoon a judd aka neexoon ma xam bàkkaar bi ma ak jëf ji ma jëf ba tax nga wal nga moyu ma won ma ginaaw lii ba lii ma dal lépp dal ma bu fekkoon ni rayoon nga ma day jëkk tey boole ma ca sama bàyyi ya jiitu woon di dee googu yi sax moo ma gënal coono bii nga xamante ne maa ngi dajeeg moom tey yow sama borom ndax doonu ma woon kërub waytu mu rànki ndax doonu ma woon doonu ma woon saxukaayu miskiin yi ci jamono ya may am ndax doonu ma woon kilifa jërëm yi ci jamono ya am ndax dawuma dimbulé way ñak jëkëri ci jamono yamay am yow sama borom man magini abjam ngi ab jam la bu torox buma défé lu rafet sa wala tax ma lu rafet suma défé lu ñaawit sama mbugal mi ngi ci sa loxu mën luma sama bop dara tay ji nak def nga ma ma taxaw ci buntu musiba yépp ak balaay def nga ma it ma nekk ci kanamu fitna yépp ba fin tol day musiba tàbbi na ci man moo xamante ni boo fekkoon yan nga ko gileem sax gileem nga du ko attan kon sama doyadi gi maak sama tuutiwaay ak ni ma doyadi nan laay mën a attani musiba mu ko ma tëgg yow sama borom samay baaraam daggtoon ba mënumaa yëkkati ab tëgg jëme ko ci sama gimiñ taddu sama ñaari loxo yépp laa boole taddu tax sax ma mën a jot sama gémmiñ bala mu àgg rek ci ab coono laa ci la cay àgg yow sama borom samay siiñ yépp dañ na sama yàpp bopp fulliku na dara nekkul ci diggante sama ñaar nopp yi luy dox diggante bi boo taxawee ci buntu ci nopp bee di seen ba ca des sama yor mi ngi yal di tokk ci sama gine sama kawari bët rot nañ ba dama mel ni sama kawar yooyu dañ ko lakk ci sawara sama ñaari bët yi sama ñaari nagi bët dañoo yooru ci sama blex ndax amut lenn lu ko fekk sama làmmiñ neewi na ba fees sama gimiñ mënuma cee tàbbal aw ñam lu mu tuut tuut te ci ak fat laa ko ci tàbbalee ñam bu ma ci tàbbal rek mu fatloo sama ñaari tuñ neewi nañu ba mum kaw mi muur na sama bakkan tuñum suuf mi muur na sama dayi sikkim samay buti daggatoo ci sama biir ba mënuma cee tàbbal aw ñam mukk ndare bu ne ma ko dugalee woon la ñam yi génnewaat ñam yi du am benn njariñ bu may jariñ sama kàttanu tànk yi dañ na bu mënatumaa taxaw ba dafa melni sama ñaar tank dañu wo ko ba mënatuma tuma leena àttan ñom ñaar ñi ñaari tànk yi sax amatuma kap nu yëkëti di diko teg alal jima amon dem na ma mujju di talal sama ndijoor bi di laaj ñi nga xamanteni ñu daan sakku ci ñoon ab tip tay yi may dem diko sakku yi ci ñoom yow sama borom samay dom yépp alku nañ bu ci kenn desoon sax dana ma mën a dimbali ci musiba bi ma nekk dana ma mën a amal njariñ waaye sama waa ñëpp yokkat nañ ma war ma ñi doon sama sama samay mbokk yi sama roxam ñëpp sib nañ ma ñi ma xamoon ñëpp nañ ma sama xarit it xeemam na keneen ku dul man kenn jéematuta xaritoog man samay àndandoo yëpp dagg nañu dem seen yoon ñoom ñëpp it àq ji ma amoon ci ñoom wedd nañ ko jëf ju rafet ji ma leen ma defal ñëpp ñu fàtte ko jamono bu ne maa ngi yooxu waaye duma am ku ñëw mukk yooxule ma jamono bu ne may balu ak waaye duma gis ku ma baal sama ngóor si doon sama jaam sax woo naa ko wuyu ma sama xeet wépp ma torox lu jëm ci ñoom waaye amuñ yërmande ci man sab dogal dong nag fi mu toll mooy lii dox ci man te toroxtaane jii ma torox moo ma ko toroxal doyee di gii ma doyee di sab tag te sab sab sab dogal ko def moo ma doyee te sa kàttanug bopp ak sa ngóorug bopp it mooy li ma teg feebar bii ma dal ba sama yaram wépp woos bu fekkoon ni day sama borom dindi na tey gii ma ko tey ragal gii ma ko ragal bu fekkoon nacc na ko ci sama dënn day ba sama làmmiñ mën a boy kon danaa wax ba sama gémmiñ fees ngir di jàmbat sama digganteeg moom ci lii mu ma teg bu fekkoon ni day jaam bi am na fenn fu yaakaar yaakaar ndimbal kon danaa yaakaar ni bu ma waxee sama wax jooji ma am ci li ma war a wax ci ay lay kon sama borom dana ma musal ci coono bi nga xamante ne maa ngi ci tey bi Ayóoba waxee wax jooju jëpp nag nga xamante ne dafay mel ni dafay jàmbat digganteem ak borom nga xam ne dem na ba mënatu ko muñ ba mel ni bokk muñ ki xaw naa wàññi tuuti mu wax wax jooju jëpp nag bañ fa daatan jóge mbooloo ma taxaw fa te mbooloo maa ngi taxaw ñett ñoo ñu ko doon yàdd ak xale bi leen doon waar ñoom ñëpp ñu ngi taxaw aw niir daal leen di jege jege leen jege leen jege leen ba tiim leen ñoom ñëpp ba ñoom ñëpp dañoo mujj tiit jàpp ni li de mbugal la moo xam day bëgg a wàcc ñu dégg ak kàddu gu woote ci biir niir woowu ni ko yaa ayub yow ayub in allaha taala yaqul laka ha ana xad danawtu minka yàlla day wax na ni wax na la ni maa ngi nii nag jege naa la tey bi nga jàmbatee sa njàmbat lépp jege naa la te mësumaa dañet di la jege léegi nag jógal ngant loo am nga wax ko jógal lay woo am nga wax ko tey ji te xulool sa bopp nag ginnaaw dangaa jóg rek ngeen xuloog man boo yeboon nag takk sag laxasaay bu dëgër te taxaw taxawaayu ku am kàttan ab ñaajaakoon ndax na nga xam ne yellut ci kenn muy xuloog man ku dul ko am kàttan ku mën a ñaaja de ko xamante ni ku mel ni man dong lay yellut mukk it kenn di jóg di jéem a man ku dul koo xam ni am na ñeme gu toll ni mën a fa boobu nos nos ko ci gimiñu gaynde ku ñemewut loolu rek waroo jóg di jéem a man léegi nag na nga xam ne dëkk nga mbër boo yeboo jóg taxaw ne ko man maa la sa jëmi bopp ba nga amagut maa la amal may naa la mbir moo xamante ni sa kàttan mënu woon a àgg mukk aka neexoon bi nga demee nag ba taxaw di wax ak man lu mel nii nga fàttaliku nag nga fàttaliku ana fan nga ba woon dafa mel ni dangaa jóg di bari di ëpplanteeg man ànd ak doyati gi nga doyati wala dangaa jóg di xulooseeg man ngirug mbewte wala dangaa yaakaar ni mën nga maa yay ci kaw wax ana ba may bind asamaan di bind suuf ana foo nekkoon yow ayoo bi may bind suuf di ko teg ci fondement bi ma ko teg ana foo nekkoon ndax xam nga kattan gi nga xamante ni jëfandikoo naa ko ba def loolu wala booba yaa àndoon ak man di romb ci cati suuf yi wala wala yow ci sa xerañu bopp ci la suuf si taxawee sax ci kaw ndox mi ndox mi du jaxasoog suuf si suuf si du jaxasoog ndox mi ndax sa kàttanu bopp sa ñu bopp def loolu wala bi may liggéey asamaan di ko yëkkati mu doon ab xadd boo xamante dafa nekk ci jaww ji dara tëyewu ko ndax booba yaa ma ci jàppale wala yaa àndoon ak man ci loolu ndax sa xikk ma mën naa àgg ci nga nga nga def bidiw yu mel ni yi nekk ci kaw asamaan si wala sa ma mën naa àgg ci wuuteeg guddeeg bëccëg yi nga liggéey ko ndax man nga ko ndax yaa ko def jamono bi may bi may liggéey géej yi dex yépp jóge ci biir géej yi di tasaaroo ndax sa kàtt na ko def wala suma kàtt na ko def ndax jàppale nga ma ci aw fepp ci loolu wala sa kàttan moo def doomu aadama ci biirub ndeyam roxom gi fa fay nekk ñu yar ko ba nam ba nam mate ba na ruxum ga di ubbi ko mu génn ndax loolu sa kàttanu bopp la wala sa xariñu bopp la wala man maa ko def jamono yi may fab ndox mi muy jóge ci kaw asamaan si di sotti ko ci suuf si ndax yaa ma ci jàppale bay saxal gàncax gi nit ñi di ci dund ak jur gi wala man ci sama kàttan laa ko def ndax doj yi samp ci kaw suuf ak niñ toll ak niñ amee dool ndax yaa ko samp ja sa kàttan wala man maa ko samp am jamono bi bëccëg di am ndax xam nga fan laa denc guddi gi wala guddi gi bi muy am fan laa denc bëccëg bi ndax sa xam-xam àgg na fa ana fan laa denc ngelaw li ba su ma jubluwut mu ñëw du ñëw ndax loolu maa ko def wala sa kàtt sa kàtt na ko def ak am xel man mi ko def ci biir dënni góor ñi xel yooyu ana fuñ nekk ci biir dënni góor ñi ndax yaa ko ci def wala maa ko ci def ana kan moom la malaayka yépp toroxlu ngir ak nguuram ana kan moo dot mboolem not mboolem ñaajaakoon yi ak mbooleem jabbaar yi ana kan moo leen not ci ak noteelam ana kan moo seddale wërsëg yi ba jox dàbba jox jaan yépp ci kaw suuf ci ak xarañam ana moo def loolu ana kan moo sedd gaynde wërsëgam ba fu mu fu mu jóg dajeeg moom ana kan moo xamal picc yi seeni seeni dunduwaay ba waxtu wu ne ñu mën a jóg jëm ci ana kan moo leen xamal yërmaane bañ mën a yërëm seeni cooj ana kan moo def loolu lépp ndax man la wala sa kàttanu bopp la nga ko nga xamante ni yàlla waxante naag ay yóbba waxante yi demee noonu yëpp nag Ayo alayhi salaam daal di wax ni aka neexoon suuf si xar ma dugg ci biir aka neexoon ma bañ a wax jenn wax juy merloo sama borom tey jii bi musiba mi dajaloo ci man daal ni ko yow sama borom tey jii de def ni ab te xama xamaloon nga ma sag laabiire sag laabiire it xam naa ko xam naa ni lépp loo xamante ne tudd nga ko de sa loxo yu tedd yi ñoo ko jëf sa xereñ it moo ko settantal teyit xam naa ni day dara lotloowu la dara du nëbb dara du la nëbbu it dara du fàddu ci yow it lu mu tut yaay ki nga xamante ne xam nga liy toq ci ay xalaat ci xelu nit ñi te wóor na ma ni it sama balaa bii ma dal xam nga ko dara ëpp la ci xam nga ci loo xamante ne sax ma ko bi may wax nag dog ngànt sàkku ngànt akulay rek moo ma taxoon di wax waaye nag bi nga ma noppiloo noppi naa di sàkku sa yërmande te fas naa yéen dootuma dellu mukk ci kàddu yi mel ni yooyu ma waxoon dootuma jàmbat mukk ci àdduna fab naa sama loxo yi teg ko ci sama gimin, matt naa it sama làmmiñ fab sama lex it tëral ko ci kaw suuf si ngir sama doyati ak sama toroxte noppi naa bi nga ma noppiloo it noppi naa ngir sama ñaawtaf yi moo ma noppiloo yàlla nag ma jéggal sama bakkaar yi nang nag ma jéggal li ma wax te fas naa yéene dootuma dellu mukk ci loo xamante ni lu li doon nee na bi mu ay ayyóoba daal di yàlla tabaaraka wa taala daal di wax ayyóoba ni ko yow ay ayyóoba sama àtte dox na ci yow sama yërmande jiitu na sama mer ba bi nga juumee jéggal naa la li nga wax lépp yërëm naa la it ba danaa la delloo sa waa kër delloo la sa alal delloo la lu na toll ñu ànd ak ñoom ngir nga doon kiimaan ci ñuy ñëw sa gannaaw doon ak waaru waaru it ci ñi nga xamante ñooy borom balaay doon ak defalit ci ñi nga xamante ni ñooy way muñ yi daal ni ko far farkud bi rijlika haza muxtasalun baaridun wa sharab ni ko nag ja jamal këddaal sa tànk fii boobu ba mu ko këddaa am lu mel ni dex bëtu ndox ba fa génnee boo xamante ne bu sedd la mu naan ca ba màndi ba mu ca naanee mboolem tawat joo xamante ne nekkoon na ci biiram dafa daal di génn mu saafaraw ba set wecc mu daal ni ko sa àndandoo yooyu it na nga leen jéggalul yàlla ndax mooy nañ ma ci yow bi mu leen bi mu ko waxee loolu yi mu daldi këdd bëtu ndox génn bam mu ca sangoo mboolem lu nekkoon ci moom ci musiba ci ay góom ay picc ak yooyu yëpp daal dañ mu daal di génn daal di toog soxna si jóge ca fa mu daan jóge daal di ñëw ñëw di ko seet si te fa mu ko daan bàyyi muy tëdd nga xam ne ko daan bàyyi muy tëdd ci benn barab rek sax yeeg yépp wër ko bi mu ñëwee ba fa mu ko daan tëral mu ñëw fekk ko fa soxna si jóg daal di mel ni ku tëlbati romb ko ba mu ko rombee gis Ayoba mu sol yére yu rafet mel weneen melokaan bu rafet mu mel ni ku tëlbati ngir dem na ba fa mu daan tëral jëkkëram fekkatu ko fa mu ñëw romb Ayoba mu sol yére yu rafet toog mu ne ko yow jaamu yàlla bi ndax am nga benn xam-xam ci waa ji ñu natt woon mu nekkoon fii ayoba ne ko ndax xàmmee nga ko boo ko gisee danga ko xam mu ni ko waaw waaw nu may def ba duma ko xam ayoba daal di mooñ ne ko maa ngi nii jigéen ji bi ayoba ree mu xàmmee ko ca reega daal di ñëw lëngoog moom biñ lëngoo nag Ibn Abbas wax na ni lëngoo googu biñ bi mu daatam dañ jëpp alal ju ñu amoon rek romb na leen nee na foofu yi loolu yi moom la yàlla junj ci alxuraan di wax ne wa ayubu is naadi rabbahu anni massaniya durru binus massaniya durru wa anta arhamur rahim fastajabna lahu léegi nag woote yi ci borom xam-xam yu woote mooy jamono yi muy woote ak diiru musiba mi nan la toll ak sabab ba tax ay yoba wax ya dor ndax amna ku ñu wax ibnu haqil ibnu shahab mu jele ci anasun malik mu wax ne yonte bi sallallahu wax na ni ay yoba saxna ca bala ba fukki ab ak juróom-ñett ña ko jege woon bañ ko ña ko sori woon bañ ko ba mu des ñaari gaay yu bokk ci ay mbokkam yoo xam ne dañ daan xëy di ko seet si di gont di ko seet si kaja kenn ka wax moroom ja ni ko giñ naa ci yàlla ne ayow ba dafa bàkkaaru bàkkaar boo xam ne kenn mës a bàkkaaru bàkkaar bu ne ni ko lu la xamal ni la a bàkkaaru mu ni ko ndax fukki at ak juróom-ñett ngi yoo xamante ne mi ngi nekk ci musiba mu nekk yàlla yërëmu ko kon dafa bàkkaaru waa ji loolu mënu ko muñ ba dem ci ayoba nettali ko wa nettaleeg ko noonu ayoba ne ko man de loolu yi ngeen di wax seetlu ma xaw ma bàkkaar bi ma def de li ma seetlu ci lu ma jàpp ni daal bu fekkee maa ko def moom la mooy mas na maa romb ñaari gaay yuy xëccoo di fàttalente yàlla ci seen biir di lent yàlla di xëccoo nag di ca werante ma di leen won gannaaw ba dem nëbbu ci sama biir néeg ngir bañ kenn kuy tudd yàlla ci lu dul ak dëgg maanaam werante wa ñuy werante ci seen biir di tudd yàlla kenn ku ne naan giñ naa ci yàlla nangam loolee mere ma ma leen mere ba dem fatu ji daal jàpp naa ne bu fekkee am na lu ma yàlla meree loolee la waaye loolu laa seetlu ci loo xamante ne daal moom laa set ci bàkkaar bu ma war a def te la ma leen mere it mooy ni lu tax ñuy tudd yàlla ci lu dul ak dëgg loolu yi moom la ibnu Abbas wax ni yonente bi sallallahu moo ko wax ci Ayyuba am na ci riwaayaat yi koo xam ne dafa wax ni seytaane ba mu defee ay pexeem yépp te gisul lenn lu jariñ ci Ayyuba fa mu toll di muñ di gën a ko tawxiid ci yàlla dafa dajale ay kuréelam yépp ni leen nag man de tiit naa ci mbirum ba ndax li ma xam lépp ci ay pexe def naa ko lottuloon na ma nag ndax fu mu toll rek mi ngi sant yàlla ndax ginnaaw yàlla boole def na ma alalam ma yàq ko mu boole ma ak alalam ay doomam ma rey leen bàyyi lu ma ko alal bàyyi lu ma ko jenn doom lépp mu muñ ko di tagg yàlla yaram wi def naa ci fu ne ab góoma nga fa te teewut muy sant yàlla ña ne sànni ko ci mbalit ma teewut muy sant yàlla di loolu tax na jaaxal na ma loolu moom ayoo ma bëgg nag ngeen dimbale ma yéen sama kuréel bii ku ci xam menn pexe moo xamante ne mën nañ caa jaar nga wax ma ko ñu daal ni ko ana sa xam-xam ba nga amoon ak pexe ya nga amoon jamono ya ngay génnee aadama ci biir àjjana mun leen pexe ñu ne ko ci jigéen nga ko jaareel mun leen waaw ngeen ñu ne demal jaar ci soxnaam ndax soxna sa boo ci jaaree mën naa am nga am ci benn bunt ñu wax ne Iblis daal di leen wax ngeen dëgg daal di jóg dem ci jigéenam dem ci soxna ay Ayyuba ba mu demee ci soxna si Ayyuba daal di koy fàttali fi ñu jaaroon fépp ni ko yow day sa jëkkër li mu ak ni mu meloon ci ab taar ak bi mu amoon te lii ko dal nanga ba nanga ba mu ko waxee wax a wax wax ba xelum jigéen ji am tiitaange ak i xalaat mu daan ne ko nag mën na la cee defal men pexe jigéen ji ne ko lu mu doon mu ni ko gàtt bii boo ko yóbboo mu rayal ma ko mu ray ko yéene ma ko maanaam nga xamante ne man la koy rayal daal jaamoo ma ko boo ko defee lépp lu de lu jóge woon ci moom dina dellusiwaat dina amaat alalam taat bu dana dellusiwaat wax jigéen ji daal di jël gàtt boobu ñëw ba agsi ci ayoo ba daal di yooxo ne ko ba kañ la la sa borom di mbugal mbugal yu tar yi mu lay mbugal te du la yaram ba mukk ana alal ji nga amoon ana jur ga ana say doom ana say xarit ana sa mbubb mu rafet ma nga amoon loolu lépp soppiku na mel ni bënd ana sa yaram mu rafet ma nga amoon ne ko dara amatoo ko fi toll ni sax yaa ngi nii di baagante ci yow si dugg sa yaram week gen ran rendil gàtt bii ndax nga noppalu ci coono yi nga nekk ne la ba ko rendil gàtt bii ayoba daal di xool soxna soosi ni ko yow di dafa mel ni noonu bi yàlla ba di iblis moo la diggal wax ji ngay waxe du yow yaay wax waaye iblis moo sopp ba dugg ci sa biir mooy wax ni ko tuskare ñal na la ndax xam nga li ngay jooy lañ ne bañ ba jamono bi ñuy am alal ñaata at lañ am alal lañ dund ci alal mu ni ko dund nañ ci juróom-ñett fukki at mu ni ko na léegi ñaata at la neena mu ne ko boobaak léegi mat na juróom ñaari at mu ni ko ndax bu fekkee ne nattale nga diggante juróom ñett fukki at yi ñu dund ci alal ak juróom ñaari at yi ma ñàkk nekk ci natt bi day boo ko defee da nga xam ne maandu wóor sa diggante ak sa borom ndax juróom ñett fukki at yi bànneex juróom ñaari at yi tax nga bëgg a wedd yàlla delu ci lii daal ni ko tuubal te muñ te xam ni seytaane moo la digal li nga nekk waaye li nga nekk daal di waat ni ko giñ naan de jaamuloo gi nga ma bëgg a jaamuloo xiram naa boo rayee Boraya rayee xar mi da nga am nangam ak nangam giñ na ne suma yalla yàlla wéralee de dinaa la dur téeméer yar ngir kafara ko loolu nga nekkon daal ni ko ta wépp ñam wo xamanteni ni yaa ma koy andil ak naan ko muy andil aram na ci man dootuma ci ci dara gëna wax nga lu mel li nga wax ni ko acci jogal fi bëggatuma la gis dal koy daq ba mu soxna si soxna ci dem bi ayooba gisene ne na soxna am sosu ba dem na aw ñam amu fi ak naan amu fi ab xarit amu fi mu daal di sujjootal yàlla daal di ñaan-ñaan gi ni rabbi massaniya dur wa anta arhamar rahim daal ñaan bi ñaanee lañ ko wax ni ko yëkkatil sa bopp ndax ñaan gi ngay ñaan wuyu nañ ko daal koy wax ni ko urkod birijlika haza muxtasarun baridun wa sirab loolu ab riwaay la boo xamante ni ci riwaay yañ ci nettali la bokk ñu ni foofu yi la ayoo ba mujj ak balaa boobee bi nga xamante nag léegi këdd na suuf si ndox mi génn mu sangu ca naan ca yàlla demal bépp kii bu ko dalal bépp feebar bu nekkoon ci moom mu wér peeg daal di sol ay yérem di gestu càmmoñ ak ndijoor jóge fa dem ba ci benn béréb mu toog fa soxna sa bam demee gis ni ayoo ba dàq na ko mu xalaat ni waaw man dàq na ma waaye mënul boppam dara su ma ko fi bàyyee fee mu dee ak ku mar ndégment yi ñëw lekk ko loolu kon ay yëpp maa ko yan daal ne dinaa delluwaat ci moom ndax xam naa ne mënalul boppam dara bi mu ñëwee ba di ko seet si la xool-xool gisul fa mu ko daan gisu ko jësan ba mu ko bàyyi woon mu jaaxle loolu di wër jàpp ndégment yi dañ ko lekk di jooy jamono boobu ayoo baa nga toog fenn rek di ko xool waaye nag melo wu rafet bi mu mel te yaakaari wu ko tax na ñemewu ko laaj sax ayoo ba daal di koy woo ni ko loo bëgg yow jaamu yàlla bi mu jooy ni ko kañ natt woon kañ tegoon fii sànni woon ko fi ci sën bii damaa xamut ba xam dafa sànk wala nit mel ni dañ ko lekk Ayoba ree ni ko lu mu doon ci yow mu ne ko sama jëkkër la mu ne ko ndax boo ko gisee da ko xam mu ne ko waaw bu ma ko gisee dinaa ko ni ko man mii mu daal di jooy mu dal di jooy ayoba ne ko man mi maay ayoba li ma digaloon ma rendil iblis ab gàtt ma bañ ko topp yàlla mooy seytaane moo tax yàlla dimbalee ma lii nga gis nii léegi nag giñ gim giñoon dana ko tuur téeméer at nag moom la ko yàlla woya falal ni ko kon da ngay wut takkub ñax ay ñax ba mat téeméer nga takk ko benn takk bàcc ko ko bu ko defee téeméeri at yi nga waxoon ngiñ li dana dañ loolu yi mooy mujjug xissab Ayuba ak soxna sa ak muñ gëm muñoon waaye loolu lépp ci nattu boobu yi yàlla mi ngi ci jublu rek képp koo xamante ni ab nattu dalatina la rek ci àdduna boo xoolee nattu Ayuba boobee xam ni àggoo ca te it yàlla balaa kenn am ci moom ab cërit coono yu demee noonu fokk nga jaar ci defal googu yi rek moom la ci jublu moo tax mu nettali ko yonte bi sallallahu alayhi wa ci alxuraan ngir bëgg mu roy ci aw xeet tamit ci roy lii kon ci mbirum xikma yi nga xamante ni yàlla doxoon na ko kañu wax Luqmaan Luqmaan nag ak wuute am na ci ñi ne ab yonente la ñi ne déedéet dafa doon nit ku baax rek waaye yàlla tudd na ko ci alxuraan wax ni wala xadaa tey naa Luqmaan al anuskur lillah ginnaaw mi waxaat ni wa iz qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azimun ba ci aaya ma wax ci alquran ni may nañu luqmaan xikma mu wax ni luqmaan doon na waar doomam ni ko yow sama doom bul bokkaale ak yàlla ndax bokkaale day tooñ gu mag la loolu yi alquran moo ko nettali delluwaat ni yaa bunayya innaha in taku misxaalu habbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ardi yati biha allah inna allaha latifun xabir wax na doomam ni ko nanga nga xam ne yàlla day lu sew rek moo la gën a sew ndax aw fepp pepp day wu nekkoon ci ron juróom-ñaaral bi suuf ca saxra daj wa nga xamante ne dañoo wax ne suuf si ca daj woowu la taxaw day fepp pepp wu ca nekkoon sax yàlla mën na dem ba lu xaciw génne ko kon yàlla ku sew la loolu xikkaami Luqmaan la yoo xamante ne alxuraan moo ko tudd wax nañ ne Luqmaan fi mu njëkk a feeñale xikkam Luqmaan nit ku ñuul la woon koo xamante ne dafa nekkoon ci loxo yi ab sang di ko jaamu wax nañ ne xikkamam bi njëkk a feeñ ci xikma yi sang ba daf ko mas na wax ne ko demal rendil ma gàtt bi te indil ma ñaari dog yi ci gën ba mu ko rendee indil ko làmmiñ wax ak xol ba ginnaaw bi mu reyloowaat ko ab gàtt ne ko ñaari dog ya ca yées la bëgg nga indil ma ko mu dem rey ko indiwaat làmmiñ wa ak xol ba mu ni ko waaw lu tax ma digal la nga indil ma ñaari dog yi ci gën nga indil ma làmmiñ wi ak xol bi ma laajaat ñaari dog yi ci yées nga indil ma làmmiñ wi xol bi Luqmaan ni ko mbir day bu xasee bay baax nit ku mën a doon wala lu mën a doon rek la ca bu xasee bay baax làmmiñ wa ak xol baa ciy gën bu xasee ba yées it làmmiñ wa ak xol ba ñoo ci yées moo tax ma indil la ñaari Luqmaan daan wax ci xikkamam ni genn xéewal melut ni wér genn xéewal yemut ak wér la daan wax genn alal melut ni wér amut genn xéewal gu mel ni daluk xel xel mu dalit xéewal féeri ko kaw loolu Luqmaan daana ko wax jële nañ ci Abu Hurayra mu wax ni benn bis benn waaye dafa romb Luqmaan nit ñi wër ko muy waxtaan mu ñëw fa ni ko waaw du yow mi yow ay jàmm ñuul ba ma xamoon nga doon sàmm ci barab sàngam ak sàngam neen Lokmaan ni ko waaw mu ni ko ana martaw bi nga am nag lu la ko may muy nit ñëpp toog wër la ni nga di leen waar mu ni ko wax dëgg ak di matal kolere ak bàyyi lu ma amaloon njariñ ñett yii lu ma am moo ko may di wax dëgg ak matale kóllëre ak lépp lu ma amul njariñ ma bàyyi ko moom ma agsil fii ma àgg tey Lokmaan daana wax ni daanañu wax wax nañu Luqmaan ni ko kan moo gën a tedd ci nit ñi mun leen ki gën a tedd ci nit ñi mooy ki nga xamante ni faalewut nit ñi gis ko muy def lu ñaaw nga xam ne la muy def du ci ragal doomu aadama kooku mooy ki gën a tedd ci nit ñi ba tey am na ku mas a wax Luqmaan ni ko yaa ka ñaaw sa kanam gee ka ñaaw mu ni ko waaw jëmmi rëdd bi ngay ñaawal wala ka ko rëdd ngay ñaawal mu ne ko lan mu ne ko man nga jubloo wax ne sama kanam ngay ñaaw wala ka ko defar man ngay ñaaw wala yàlla ngay ñaawal moom mi defar kanam gi wax nañ ni Luqmaan waxoon na doomam jooju ci biir xikamam ni ko àdduna day géej gu xóot la ñu bari ci nit ñi lab nañu ci kon wutal fabal ragal yàlla mu doon gaal gi nga xamante ni moom ngay jaare ci kaw géej googu yi dénk ya ca soofu gaal ga na ko def muy ragal muy ak ngëm ngëm yàlla bagage yi ngay doxé ci biir gal gi nga def ko muy wakirlu ci yalla boko defé da nga mucc te japp ma sax da nga mucc nak oh, yow sama dom nit ñi ana lan mo waral duñ ragal la leen di del ak lam leen di tëkkoo te jamono bu ne ñu gis di manki fuñ toll mu ne ko lima lay ñaan mooy aduna nag ci jël li tolloog sab dund rek waaye bul ko dugg nag bul dugg aduna cent ndax boo ko defee da nga lor sa alaxira waaye bul bañ àdduna wàcc ko it ndax boo ko wàccee da ngay doon aw gangal ci kaw nit ñi na ngay woor koor goo xamante ni day day wàññi sa bànneex te bul koor koor guy dox sa digganteeg julli ndax julli moo gën a màgg koor ko yow sama doom bul jàng xam-xam mukk ngir di ci puukare wonte ak borom xam-xam yi baa ngay jàng xam-xam ngir di ci weranteeg way dese yi wala nga di ci njëstal ci jataay yi bul bàyyi xam-xamit ngir dëddu ko ak xeemem goo xeemem ak réer yow sama doom nanga nga tànn jataay yi